jaajëfal leen mbokk internet yi sa fotew info 2S TV daleen nag jàmm ci xibaax ñu doore ko ci ab post boo xam ne kii di Déthié Fall njiital PRP daal dina ko def ci page Facebook am mu doon xam xamle ni demoon na seeti kii di Ousmane Sonko ca prison bu Cap Manuel ne kii ci àllarba gi doon yemoo ko ñaar fukki fan nak juróom-ñeent ci weeru novembre atum 2023 moom nag nee na ma ngay rafetlu dal ak dignité bu matt bi nga xam ne kii di Ousmane Sonko am na ko ci wàllu nu mel ni eh, kii di Ousmane Sonko nag eh, place am du ca prison ba ba noppi nag eh, di sàkku ci njiitu réew mi Macky Sall ngir rek mu daal di ko libéré ni mu gën a gaawee moom nag daal dina xam le ne ñoo ngi gën a fësal nag seen i njàppandal waaye itam di militer ngir ñu amal ab élection présidentielle bu jaar yoon te leer ñëpp daal di ci bokk rawatina nag ki nga xam ne moom mooy Ousmane Sonko moom nag loole la xam le moom njiital PRP di Déthié Fall ci ab poste